dimbalante am na solo lool ci jamono ju ñu wala rek mouvement bii di ànd dimbalante qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes de dons pour les hôpitaux dara mosquée juma école prison pouponnière et internat donc yow mi may déglu si tu veux vraiment aider N'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange monnaie sur le numéro 78 433 44 51 de Mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alisek. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 And Barna, Amna solo tey ñu ngi ci cérémonie officielle bi jeexagul ñu ngi fii di car euh, euh, ndànk-ndànk kilifa yi di génn rek kuñ si am rek mën a waxtaan ak moom tuuti son excellence Mbacke Mbacke Mbacke ñu ngi lay nuyu mu mel ne yow boo fi teewee dañ naan ñaari tànk nga fi teewee muy si administratif yi tam ci mbaake gi kon di da di euh, nekk nga kilifa diine nekk nga kilifa diine nekk itam koo xam ne yaa ngi si administration bi kon yu mel nii lan lañ si mën a jàng Mbacke waaw lu ñu si mën a jàngal nag lu bari la parce que discours la yoo xamante ñaar discours la muy bu xam saa du murid moo ñu si gën a yitteel euh, wax na si lu jëm si askan wi wax na si lu jëm si maanaam dëkkandoo yi nan la war a mën a àndee euh, wax na aussi tamit état bi nga xam moo yore nguur gi ak keesu xaalisu réew mi mu am yërmaane ci baykat yi ak nappkat ak sàmmkat yi ndax xam na ni moom ku leen yërëm ñooñu jàppale leen Sénégal mooy jëm kanam te Sénégal moom moo ko ñor ak taalibe yi beneen bi mooy dund nañ ay jafe-jafe yoo xam ne comme ni ma ko waxee ren mosuñu ko dund ndax dafa am ñett yoo xam ay problème ndax fi ni maanaam depuis démb barki démb yëpp kenn mënut a woote kenn mënut a wuyu am na ay gan yu bari yoo xam bëggoon ñëw si kër jàmbur yi sax si kër yi mun ñu ñëw parce que mun ñu jokkonte ñoom beneen bi nag mooy problème dëkk bi kon war nañu xool yooyu bala ñu àggaat si màggal gi ñu mën a fexe ba saafara lool dégg naa maanaam ministre wax ni 23 milliards francs CFA na ko ci para orsec bi nga xamante ne moom lañ déclaré woon daaw mais man li nga xam japon 23 milliards yoy non depuis daw lañ ko mais ñu audité li nga xam moy bo fa lañ ko duggal benen bi tamit manam ñu def ay proposition comme man leen au lieu que ñuy 60 hectares nañu jël manam li nga xam moy assainissement bi jël ko romb ko autoroute Ila Touba bi mu jëm ba xombal bu ñu fait deux fois yo fenn ne dañ fay def canalisation des xam day continuer fu mu bu mu jaar nit ñi naan ba bay naan ba def 60 hectares yo xamantene des yak sosie ba nit ñi duñ fa mëna duñ fa bay idée la bo xam ne gëna na seen proposition comme ñun nak askan lañ fa nekkal rot population kaddu population bu Touba lepp lo xam japp buñ ko défé population Touba dañ gis seen ci loolu man lay dox nañu canalisation bi jaar ko autre route bi mu romb ñaari ñu gas def ko ba nga xamante ni tey dëkk bu mu jaar ña fa dëkk dana mën a jël ndox ba pare maanaam euh, jur gi man saa naan loolu moo gën a yomb moo gën a gaaw te teen maanaam su boobaa du fa nekk te naan bassin bi daa toj wala lii daa toj wala loo naan yaakaar na loolu mooy a gaaw si benn projet boo xamante ni man propose naa leen ko aussi tamit heure bi daaw woote woon naa bisse boo xamante ne 3 milliards la bu doon jëm si Touba si assainissement ba ba léegi ni gisuma xaalis fan la dugg loolu war nañ ko ñoom li seen problème mooy mën nañu annoncé même duñ def évaluation duñu xool xaalis bi ñu joxe fan la dugg wala fan lañ ko dugal ñun nag comme ñun Touba ñu ñor te Touba lañ togal il faut que ñu veiller ci lolu ba paré nan incité pour déposer enquête parlementaire pour lolu ñu man ko léral pour askan ñu xam seen xaalis fan lañ ko dugal mais chaque jour nga ñew Touba rek di annoncé ay milliards nga diko ko diko di lolu détourné loolu jaarawul population bu Touba waaw son excellence son excellence balaa ngay dem itam bu dé comme yu melni ndaje yu melni nii si lan lañ ci mëna a bu dé ci walu diiné la comme ni mu mën a boolee julli ñi mën a euh, Serigne Touba Serigne Touba ñëpp la won islam la fa nekk loon bi muy wootee dafa woote woon en tant que koo xamante ni da nga ñëw pour yor kàddu subhaanahu wa taala muy message boo xamante ni da nga ñëw pour mottali ko pour jullit di mën am yërmande ñëpp dégg nañ ko ndax ñi fa daje tey jii ci jullit yëpp yaakaar naa ni bëriwut a am démb ñoom ñëpp kenn ko dégg nga fa jël nga fa sa kàddu tey daanaka Sénégal yëpp ñoom ñoo daje loolu nag moom la sëriñ bi woote woon ñu ñu ñëpp jullit ñu maase nekk benn xeex am benn objectif muy xeex li nga xamante ni mooy ñiy agressé diina ji yaakaar naa ni loolu wane nañ tey loolu war naa mën a am en tout cas loolu moom jërëjëf son excellence ñu sant. njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit cën na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu euh, leer nañ ak ay vidéo yu doy C'est sur une page B du social shopping immobilier bu de defee yéen ngeen ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër nexna ci